C'est un plaisir de te, de te, retrouver ce matin. sama superstar euh, maa ngi lay nuyu nee naa la toujours l'élégance est au rendez-vous <laughs> comme ni mu élégant wi tey gis ngeen ni costume africain la ñëwee donc nuyu naa la nuyu suñu invité également elle est toute magnifique également donc di nuyu également euh, téléspectateurs yi ñu seetaan à travers le monde entier léegi léegi rek tey damay ñëw ci première partie bi accompagner la. waaw accompagner ñu en attendant nga ñëw ñun ci astuce. astuce après la alors tey nag mbokk yi dañuy waxtaanee li nga xam ne moom la ñu duppee euh, Euh, climatique justice climatique nag jàpp xam ngeen ne jamono ji àddina wërngël képp dafay jànkonte li nga xam ne moom mooy euh, changement climatique donc changement cli climatique boobu suñ ko waxee justice climatique pacc la ci ndax euh, bokk na itam ci li nga xam ne euh, moom la ñu mën a woowee justice euh, climatique suñu gan dinañu ko waxal mais lépp loo xam ne dafa ànd ak changement climatique bi droit maanaam loi yu ñu ci war a tëgg taxawaay bi nga xam ne réew yi wala njiitu réew yi moom la ñu war a mën am ngir gën a mën a ñoŋal xeex bi ñuy xeex changement climatique bi loolu yëpp moom moo ëmb li nga xam ne moom mooy justice climatique bi ni ñu ko waxee dañ koy wax rek pour mën campé débat bi mais eh, suñu gan dina ci gën a xuus ñu am nag mbégte lool dalal koo xam ne dafa miin kër gi lool ndax bokk na si ñu ko euh, sànce daanaka euh, employé la fi woon muy euh, Khady kamara di taskatu xibaar de formation tey nag mu fas yéene ñëw waxtaan ak ñun ci li nga xam ne moom mooy. Euh, justice climatique rawatina marche bi nga xam ne ñu ngi ko jagleel euh, madame Camara c'est un plaisir de vous retrouver sur le plateau. salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum. Euh, waa 7TV mhm. di la nuyu di la ziar di rafetlu dalal bi di nuyu aussi la star. <laughs> di ko mhm. di rafetlu dalal bi en tout cas mbégte dong laay am saa su dee su ma ñëwee 7TV comme ni nga ko waxee. Mhm. c'est mon bébé. Mhm. voilà macha allah <laughs> macha allah alors dañuy dem rek dugg ci vie sujet bi waxtaan bi mooy troisième édition bi nga xam ne euh, les femmes euh, c'est la marche des femmes pour la justice euh, climatique. Mhm. dama bëgg rek ñu ñëw ci terme justice climatique bi ndax c'est un terme nouveau nan nga ñu ko mën a faram-fàccee ñu comprendre ko. balaa ñu jëm ci marche bi. waaw man nag euh, maay Khady Camara présidente association Vacances Vertes. d'accord ndaxte foog ma présenter aussi association bi nga xam ne moom laay jiite. depuis 2017. ñuy xeex lépp lu jëm ci wàllu aar ak sàmm suñu alam fii ci Sénégal. Mhm. mais aussi aar sàmm lépp li nga xamante ni aussi mooy àq ak lépp jigéen ñi nga xam ne ñoom euh, lii di effet changement climatique def leen laal bu baax a baax a baax euh, ci loolu euh, question bu ma neex nga ma posé ndaxte vacances vertes depuis 2020 dañu réorienté suñu projet jagleel ko li nga xamante ni moom mooy jigéen ñi ndax dañoo seetlu ne jigéen ñi nga xamante ni ñoo nekk ci àll bi li nga xamante ni mooy effet changement climatique sonal na leen lool Euh, terme justice climatique nag boo ko déggee xam nga bu ñu nee justice rek. Mm-hmm. mooy injustice mm-hmm. am na. injustice boobu nag li ko waral mooy euh, Afrique bu ñu ko xayma 4 pour cent kese lay euh, produire ci li ñuy tuddee tooke yu bon yooyu ñuy tuddee gaz à effet de serre. Mm-hmm. nga ne ni tey moo lëmbee àdduna te moom moo tax catastrophe yi ñuy dund yëpp ci àdduna bi ñu koy dund. crise yi ñuy dund yëpp muy crise économique bi ñuy dund sax. crise environnementale la boo ko xo boo ko saytoo ba xool ko ba ci biir donc euh, ñun dañu ne Afrique bi nga xamante ni 4 pour cent rek lay produire ci gaz à effet de serre yooyu 96 pour cent yi ñi nga xamante ni ñooy réewu taax yi ñoom ñoo koy produire yegg ko produire nag depuis ci révolution industrielle mm-hmm. tey jii loolu di gaañ suñu askan di gaañ suñuy njaboot moo indi sax li nga xam ne tamit mooy immigration clandestine bi donc loolu yëpp ñun dañ leen tuddee sax ay réfugiés climatiques xale yi nga xam te ne ñooy jël gaal yi di dem parce que mbir mi ni mu waroon demee développement bi ni mu waroon doxee moom moo sooxee ci presque secteur yëpp mhm. te li ko waral pour ñun environnementalistes yi mooy euh, effet changement climatique mhm. loolu moo tax ñu ne dañuy réclamer justice climatique parce que ca COP 21 en 2015 ca Paris dafa am ay accords yoo xam ne dañ ko fa signé woon ñu ne woon ñëpp nañu engagé wu daal di fexe ba wàññi li ñuy produire ci tooke yu bon yooyu ñu tuddee gaz à de serre. Mmh. parce que experts yi nga xam te ne ñoom ñoo seen xel màcc ci wàllu environnement ñu tudd leen des experts du GIEC dañ nañu woon euh, il faut que ñu réduire suñuy euh, gaz à effet de serre ba. un point cinq léegi un point cinq boobu dañoo seetlu ne depuis deux mille quinze ba léegi kenn respecté wu ko rawatina dëkk yi nga xamante ni ñooy dëkk yi gën a mag ci àdduna bi muy Amérique muy France fépp réewu taax yi mënuñu fexe ba respecté loolu looloo indi comme pandémie yi ñuy wax parce que experts yi ne woon nañ ñu ne bu fekkente ne jëlul leen seen matuwaay bu fekkente ne respecté wu leen ñun conseils yi ñu leen jox dina metti lool wante dafa am ay yeneen rapport yu yoo xamante ni aussi dafa génn di wane ne que mbir mi Afrique moo koy gën a subir te ni mu koy subiree dafa métti kon loolu nekk na tooñ tooñ boobu nag moo tax tey vacances vertes takku ba dëgër ànd ci nag ak ay partenaires partenaire bu bees boo xamante ni ren ci troisième édition bi loolu daf ñu daf ñu neex torop parce que neex na ngay def liggéey nga dem seeti ji ay nit waxtaan ak ñoom ñoom ñu nekk ci même combat bi ñu ne la li ngay def neex nañu waaye bi yoon bu ñu lëkkaloo woon dina baax ñu lëkkaloo ceeg euh, ONG bu ñuy tuddee Natural Justice xam nga ba léegi justice mu ngi ñëw mm-hmm. donc ñun ñoo lëkkaloo ren vacance Vertes ak Natural Justice initiatrice bi nag ci euh, Sénégal première marche historique des femmes pour la justice climatique man Khady Camara en tant que écoféministe man maa ko initié woon euh, ci loolu kon tey mbégte laay am am partenaire bu mel ni Natural Justice nga xamante ni dafay xeex lépp lu jëm ci àq ak yelleefu communauté yi maanaam ñépp ñoo ci bokk mag xale ndaw jigéen góor ñépp a ci bokk dañu war a xam seen àq ak seen yelleef ndax ñoom li ñuy gën a xamle li ñuy gën a jàngale seen formation yi ñuy gën a def ci àll bi pour communauté yi mooy ñu xam lan mooy droit de l'environnement mm-hmm. donc tey mbégte laa am bu mag am partenaire bu mel noonu ci troisième édition de la marché des femmes pour la justice climatique à dinañ ñëw ci troisième édition bi mais avant may jox peut-être kee na am euh, une question mais j'ai une question euh, par rapport ak euh, la politique de l'environnement fii ci Sénégal li ngay xeex mooy loolu on voit que dans le monde yeneen pays yoo xam ne ils sont développés ñu ngi gën a may doole lutte boobu noonu c'est-à-dire ils sont beaucoup plus, apparemment ils sont li nga xam ne moom mooy danger changement climatique bi mais au Sénégal on sent que il n'y a pas encore cet effort-là du côté du gouvernement comme si ils sont, sont ils se soucient pas trop de ça euh, comme nan ban appréciation nga am déjà ci politique euh, environnementale ci Afrique xam nga neex na euh, dëkk nga am doole nga xam ne lii mu ngi indi ay musiba <laughs> pandémie covid 19 dafa nekkoon loo xam ne dafa wër àdduna wërngal këpp mhm. te gis nañ la mu rey ca réewu taax yi mhm. kon ñoom commencé nañu xam ne kon mbir mi kat xëy na dañu yaakaaroon ne Afrique rek lay yem wante ñu nit ñu ngi ciy jot lu baree bari foofu la gën a wul pollution gis nañu ñi muy rey ci ay nit chaque année euh, pollution boobu rawatina ci réewu taax yi aussi mm. donc Sénégal aussi am na ci xam nga euh, politique boobu ngay wax euh, c'est très important moom la ñuy tuddee contribution nationale déterminée maanaam CDN mm. dëkk bu nekk da nga war a engagé wu nga wax ne man dinaa engagé wu pour réduire samay gaz à de serre parce que boo déggee gaz à de serre yooyu li koy indi yépp mooy gaz yi nga xam te ni moo jógee ko ci wàllu énergie fossile donc énergie fossile yooyu boo koy wàññi ci sa contribution nationale déterminée yow wane na kon wane nga ko ne yow yaa ngi respecté xëy na engagement yi nga xamante ni moom nga jëloon réewu Afrique yi nag la majeure partie du temps franchement ñoo ngi def ay efforts rawatina Sénégal Mhm. parce que keroog boo dégloo président de la république euh, ca assemblée générale des nations unies mhm. dafa jël lu toll ci trois minutes maanaam dix paragraphes mhm. jagleel ko lépp lu jëm ci wàllu justice climatique kon nga xam ne moo ñoom am nañu prise de conscience te commencé la leen soxal boo gisee tey ñu daal di créer lu mel ni ay BRT ñu créé ñu créé lu mel ni ay TER ñu créé li nga xamante ni mooy centrale solaire yi nga xamante ni moom la ñu def pour def mix énergétique loolu yépp ci wàllu CDN yooyu la bokk maanaam dañu bëgg woon réewu taax yi ñun kat engagement yi ñu jëloon ñu ngi ciy jéem a def ay effort wante boo gisee effort yooyu mënul fës. Mm-hmm. mënuñu ci am ay yenn résultats yi ñu soxla c'est parce que tant que ñële ñoo xamante ni ñoo nekk ci yeneen réew yi arrêté wuñu ñun on sera toujours. impacté mais quoi. Sénégal moom mm-hmm. macha allah ci côté boobu ñu ngi ciy def ay effort mm-hmm. motul gaa mm-hmm. loolu moo tax suñu euh, marche bi objectif bi mooy ñu daal di demander suñu gouvernants yi fii au Sénégal particulièrement ak partout en Afrique ñu daal di gën a yéegal niveau bi maanaam ñu rehausser seen i ambition climatique gën a def ay effort ci mbir moomu mbir moomu bokk na ci surtout ci secteur bi nga xamante ni man moom laa gën miin muy secteur euh, euh, mbay mi maanaam la paysannerie gis nga tey boo demee ci àll bi bu ñuy xool buñ ko xaymaa lu toll ci quatre-vingt pour cent des femmes ci wàllu euh, loolu la ñuy dund mhm. ci wàllu mbay mi la ñuy dund waaw léegi bu fekkente ne érosion côtière ñëw na parce que loolu yëpp ay ay ay ay ay kii la ay effet changement climatique la érosion côtière bu ñëwee ci ci ci ci ab gox di nga gis ne géej gi bu avancé suuf si dina saf xorom maanaam salinisation des sols naka la ñuy def pour defaraat suuf soosu loolu benn pàcc la te metti na trop ci ñi nga xam ne ñooy béy xam nga booy béy ci suuf su saf xorom. Mhm. ah yaakaaruma ne ngay béy hmm? moo ngi noonu. inondation yi ñuy wax ma xam ne day ñëw en cascade. Mhm. bu ñëwee gis nga Dakar ni mu mel ak assainissement bi. Mhm. gis nga yeneen dëkk Afrique yi gis nga li xew si New York. Euh, ci euh, euh, année ba la passé ci ci Noël bi mm-hmm. gis nga li xew ci yeneen dëkk yi yépp inondation yu mag yiy am ba ay nit di ci faatu di ci dee gis nga li xew keroog ca Libye mm-hmm. mm-hmm. nit ñu bari dee ci gis nga li xew keroog ca Maroc nit ñu bari dee ci kon loolu yépp ay firnde la yoo xamante ni alerte la yu ñu experts yi joxoon te ñu ngi koy dund actuellement te Afrique mu ngi koy subir bu baax a baax a baax a baax loolu moo tax justice climatique boobu dafa bëgg ñoom engagement yi ñu jëloon ñu respecté ko non seulement pour réduire seen émission gaz à effet de serre mm -hmm. mais également euh, ndàmpaay ya nga xamante ni moom la ñu waroon jël jagleel ko dëkk Afrique yi mel ni Sénégal pour ñu mën a mettre en place justement yenn infrastructure yoo xamante ni dafay euh, dem dans le sens d'une société décarbonée mhm. ñu daal di koy respecter mhm. parce que cent milliards yi ñu waxoon ba tey jii depuis 2015 ba tey jii respecté wuñ ko. Mhm. nekk na loo xamante ni kon ab tooñ la. te tooñ boobu nag ñun moom la ñuy tuddee justice climatique di ko réclamer tey mhm. à travers la voix des femmes mhm. parce que les femmes du monde rural les femmes urbaines ñëpp ñu ngi koy subir xam nga bu yàgg ba ci deuxième édition bi dañ la woon les femmes du monde rural ñoom ñoo ñëwoon ñu marché mais ren bu ñu xoolee marché bi am na ay association yu bari yu bokk ci biir Ndakaar yoo xam te ne dañu ñëw participer parce que dañ cee ñu ngi koy yëg tey yow da ngay dem marché Sarr boo demee marché booy ndugg ak ba nga doon ndugg bu yàgg ba. boo yóbboo junni xam nga li ngay li ngay li nga fay am. du bari de ah donc ñoom ñëpp ñu ngi koy subir. loolu moo tax ñuy def marche bi di gën a ñaax aussi suñu euh, gouvernants yi ñu rëwasi seen ambition climatique. parce que dafa jot tey àdduna bi yëpp ñu rëwasi suñuy ambition climatique. Kéna alors madame euh, Khady Camara man question bi ma lay laaj euh, dañu nekk dans un pays pauvre donc am na ñu bari ñi nga xam ne euh, du ñu lekk à leur faim limite benn yoon la ñuy lekk ci journée bi donc est-ce que vous pensez que ne at li ngeen bëgg projet bi ngeen bëgg tegal est-ce que dina facile fii nii ci ci Sénégal ak pauvre pauvreté bi nga xam ne moo fi nekk. li nga ma wax li nga ma laaj def ma neex. Ah. parce que dama topp ci média yi à chaque fois suñu waxee. ma ne leen Sénégal dafa am xiif xiif am na fi parce que dafa am benn rapport bu génnoon en deux mille vingt et organisation mondiale de la météorologie moo ko génnee woon damay bëgg toujours di ko fàttali. rapport boobu dafa ne woon lu bu ñu deful attention d'ici deux mille trente lu toll ci cent dix huit millions d'Africains dinañu dund li nga xamante ni mooy ndóol ak xiif. xiif googu nag man dama doon wax à chaque fois que euh, certes. Euh, corne de l'Afrique moom dund na ko ba euh, Nations Unies ñëpp mm-hmm. reconnaître ko wante nag fii ci Sénégal ñu ngi koy dund mm-hmm. parce que li nga wax dëgg la bu yàgg ba mm-hmm. dañu amoon ndékki am añ am reer am njogonan ah léegi da ngay gis ne ñun euh, ñi dañuy débrouiller wu pour lekk mën na am sax benn yoon ngay lekk ci ci ci bés bi kon loolu mooy xiif xiif am na xiif bi experts yi doon wax ne dina am am na kon bu ñu jëlul suñuy matuwaay comme ni nga ko waxee d'ici 2030 xam nga soreetul. kon bu boobaa yaakaar naa ne ki doon lekk benn yoon ci bés bi. benn boobu dina ko të. benn boobu dina ko të du amati lu mu lekk. ñun environnementalistes yi ñooy wax ci suñu jargon. après la pandémie sanitaire. Mhm. on est en train de vivre aujourd'hui ce qu'on appelle la pandémie alimentaire mooy xiif googu ngay wax. Mhm. effectivement dafa am. Mhm. alors euh, man dama ñëw rek ci euh, dépôt sauvage bi nga xam ne moom la ñuy. Euh, Euh, nemmeeku fële ci technopole bi euh, on a même parlé tey defe naa journal bis bi moom moo ko moom moo ko évoqué mhm. euh, dépôt d'ordure c'est c'est utilisé n'importe moom pollution bu dul jeex ban appréciation nga am ci loolu juste pour xam nga vacances vertes ñun bi ñuy door dañu ne woon pour des quartiers propres des mhm. plages propres et des marché propres mhm. des activités de reboisement et de sensibilisation et d'information parce que nit ki bu fekkente ne ñëw nga di waxtaan ak moom il faut nga wax ko li nga xamante ni moom moo am balaa nga koy jox ay matuwaay wala balaa nga koy wax defal nii wala defal nii. Euh, loolu nag ñun en 2017 dañoo demoon ci gox yu bari def nañ Dakar def Fatick def Kaolack di ci def loolu nga xamante ni moom mooy set setal boobu ngay wax. Mhm. bu ñu paree ñu daal def suñu reboisement. dépôt sauvage yi ngay wax en 2019 heureusement que fi mu nekk nii sax campagne électorale moo ngi waaj a ñëw parce que en 2019. Euh, vacances vertes initié woon nañu ci sama ci ci sama association benn plaidoyer bu ñu doon tuddee plaidoyer pour la prise en compte de l'environnement et de mhm. l'écologie dans les politiques publiques au Sénégal ci loolu dañu defoon cinq recommandations mhm. te ci biir cinq recommandations yi amoon na ci benn recommandation boo xamante ni dañ ci doon wax lépp lu jëm ci wàllu gestion des déchets au Sénégal mhm. moom lañ doon dénoncer ñu ne ñun de wër nañu Sénégal mais li ñu gis ci li ñu jaaxal ci gestion des déchets mooy ni ñuy gérer déchets yi. Mhm. baaxul war nañu mun a xool naka la ñuy def parce que boo waxee tey jii dépo sauvage. dépôt sauvage yi partout la nekk au Sénégal ñun région yi ñu def ci Sénégal yépp ay dépôt sauvage kese la parce que booy dawal sa oto ay dépôt sauvage kese ngay romb. Mhm. donc lu doy ni Dakar. ñun dañ ne woon sax mbëbës parce que pour ñun tamit mbëbës boobu ngay gis noonu. Mhm. dépôt sovage la. Mhm. mooy dépôt sauvage bi gën a mag ci Sénégal. Mhm. ndax benn euh, décharge à ciel ouvert dafa mel ni dépôt sovage rek. yaa ngi imaginer Malika ak environ. ñoom foofu presque ñëpp a feebar. li leen tax a feebar mooy lan mooy. mbëbës euh, boobu noonu. léegi mbëbës boobu noonu bu ñu ko bëggee indi tamit technopole. ah bu yàggee man xawma fan la askanu Sénégal jëm ak askanu euh, Dakar. Mhm. parce que actuellement Dakar non seulement avec le transport c'est pollué et puis pollution bi nee nañ sax Dakar boom bu ñu ko xaymaa booy xool mu ngi bokk ci capital yi nga xam ne ñoo gën a pollué ci àdduna bi. te xam nañu loolu lu muy rey ci ay nit euh, chaque année. donc loolu man dama koy ñaawlu di ñaan euh, euh, nguurub Sénégal mu jël ci ay matuwaay lu mu gën a gaaw. def ay effort parce que capital bu doy nit Dakar yaakaar naa ne waratuñu toog sax di romb ay euh, ay ay ay ay dépôt sauvage waxatuma la ak ay décharge à ciel ouvert comme Mbëbës. Mhm. ci loolu dañu leen lewoon nañu fexe ñu tëj Mbëbës ñu daal di koy tuxal yóbbu ko feneen. daal di créer ay infrastructures yu bees parce que léegi infrastructure yoo xam te ne mën na gérer déchets am na mhm. parce que déchets yooyu mun nañ ko exploiter mun mhm. nañ ci def recyclage mun nañ ci def euh, mun nañ ci ut am gaz mun mhm. nañ ci am lu baree bari dañ naan ordure or ordure boobu ñun dañuy tàmm di wax ne or la comme comme nga mm-hmm. takk sa bague or mm-hmm. or dur mm-hmm. donc war na mu ne créer aussi ay emploi vert donc loolu dañ ko war a di exploiter ñuy éviter aussi décharge yooyu wala lu jëm ci wàllu dépôt sauvage yooyu dépôt sauvage boobu nag comme man en tant que qu'activiste en tant que qu'environnementaliste et écoféministe mais je lance un appel à la mairie de Pikine mu def ay effort parce que loolu dafa nekk compétence léegi boo xamante ni c'est une compétence transférée ñoom ñu jël ci seeni matuwaay lu mu gën a gaaw parce que loolu du dëgg du yoon te euh, li mu nar a andi ci loraange ci askan dafay bari te euh, franchement euh, neexul tamit di gis sax ci ay mm. bët donc loolu daal laay lancé waa mairie bu Pikine ak état Sénégal bu ñu ci mënee jàpp. Ah. ñu def seen kéem kattan ba dépôt boobu dañ foofu. avant mooy dem ci kii enfin à la décharge de l'État on a on comme on a parlé de Mbeubeuss moo tax may wax il y a quand même un programme boo xam ne euh, l'objectif c'est de d'era enfin d'éradiquer euh, Mbeubeuss décharge boobu noonu mais de manière progressive parce qu'il y a des gens qui se sont installés là-bas depuis longtemps ñu fay liggéey donc comment faire avec eux ba ñu jëlee fa décharge bi euh, tout en Euh, n'ayant une autre solution pour mën leen insérer donc ils en sont là avec euh, promo jet je pense projet bi noonu la tudd bi def naa yaa ma gën a xam parce que yaa ci mhm. environnement mhm. donc c' était juste pour dire que bon comme li ngay wax état baa ngi góorgóorlu aussi lépp matul mais euh, amaana aussi bu sénégal yi dugalee seen loxo aussi ci affaire bi na baax Kenna ah, une question avant ñu ñëw ñëwaat si le marche jour marché bi comme ça mhm. ñu tëj ko ndax ñu cërale ci waxtu bi euh, des. moom elle est toute mignonne toute joviale. merci <laughs> beaucoup <laughs> madame Khady Camara alors man sama dernière question peut-être sama dernière question lay doon sax mooy euh, euh, ñun en tant que femmes on a beaucoup de problèmes donc am na problème yu bari yi nga xam ne moo nekk si jigéen donc pourquoi yéen ngeen choisir seen lii ngeen choisir mooy changement climatique bi alors que am na yeneen problème yi nga xam ne peut-être dina concerner les femmes. Euh, parce que dañoo mhm. gis ne xam nga euh, boobu léegi ñu ngi xeex lépp lu jëm ci àq ak yelleefu jigéen mhm. hmm? euh, wante àq ak yelleefu jigéen boobu environnement def ci am solo torop mhm. tey loolu moo lëmbee àdduna jigéen ñi dañoo sonn jigéen ñi booy xool ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci wàllu mbay mi wala nekk ci wàllu ñi nga xam te ne dañoo dépendre ci lépp lu jëm ci ressource environnementale mhm. benn exemple rek laa lay jox mooy bi nga xam te ni moom laa tàmm di joxe saa su ne mhm. ay waay boo jëlee tey sa oto ngay dem voyage di dak dem Dakar Thiès wala Dakar Touba wala Dakar Kaolack wala Dakar Saint-Louis wala dakaar Toubacouta wax ma rek lan ngay romb ci tali bi lan moo lay accompagner ba nga yegg fa nga jëm li lay accompagner ay table la mhm. yu ñu teg lan ay ressource environnementales mooy jigéen ñooñu amuñu banque ñoom seen banque mooy suuf si mooy mooy àll bi ressources environnementales yooyu ci la ñuy euh, ñoom sukkandiku pour mun a dundal seen bopp dundal seen njaboot ba pare am ci tuuti koom kon loolu bu fekkente ne amul ci ci ci ci ci ñooñu mooy pour man Sénégal développement moom euh, jarul sax ñuy xalaat ne dana mës a am parce que bu fekkente ne tey li ñuy wax souveraineté alimentaire ak sécurité alimentaire bëgg nañ ko atteindre ci suñu dëkk loolu mooy mooy base développement bu fekkente ni bëgg nañ ko atteindre tey ci suñu dëkk war a mun wala mu nar a nekk réalité ci dëkk bi ce sera je vous assure man mi nekk ci terrain bi grâce au leadership de ces braves dames du monde rural de ces braves dames du monde urbain yi nekk fii ci dakaar ci ñaay yi forêt classée de mbaaw un peu partout ñooñu ñoo yor tey économie dëkk ñooñu ñoo tax tey yow boo demee marché nga fekk fa looy lekk ñooñu ñooy tax tey bu fekkente ne ña nekk par exemple ca ca ci noor bi ah à Saint-Louis di béy ci wàllu ceeb bi tey jii ñun li ñuy importe ci ceeb doyuñu tey budul woon ñooñu tey boo di nga toog ay fan doo lekk ceebu jën. Mm-hmm. kon ñooñu lu ñu dañu leen war a xeexal xeex seen ak ak seen yelleef taxawal leen waxal leen pour seen kàddu egg fa mu war a egg. Mm-hmm. parce que kat bu ñu fàtte ne ñun li ñuy def nii marche pré COP la tudd la COP 28 c'est à partir du 28 bi du 26 bii di ñëw mm-hmm. jusqu'au douze ñun dañuy def suñu marche à chaque fois une semaine avant la COP pour que. Euh, non seulement suñuy euh, autorité xam fan la mbir mi toll ñu informer leen sensibiliser leen ñaax leen def mémorandum jox leen ko wax leen lan la ñu soxla ci ñoom pour que aussi communauté internationale bi à travers la presse eh, internationale parce que à chaque fois bu ñu organiser événement bu mel noonu dangay gis presse étrangère bi nekk au Sénégal yépp dañuy ñëw couvrir ko wane ko partout dans le monde ce qui veut dire que message bi nga xamante ni moom la ñu bëgg jàllale message bi nga xamante ni mooy jigéen ñoo ñu nga xam ne ñoo ngi souffrir matin midi soir sonn lool am gisatuñu jëkkër ndax jëkkër yi léegi daw nañu góor ñi dañuy daw déserté soit ñu ngi ci immigration clandestine soit dañuy def exode rural jigéen ñi kese ñoo fay des ak xale yi <laughs> donc du coup ñooñu boo leen xeexalul kan ngay xeexal ñooñu boo leen jàppalewul kan ngay jàppale ñooñu boo deful mémorandum def ci lépp li nga xamante ni moom la ñuy dund te bëgg ñu jàppale leen ci nga daal di koy teg ci table président de la république wala nga teg ko ci table ministre de l'environnement du développement durable et de la transition écologique mhm. pour que bu ñu demee ci COP 28 ba bu ñuy négocier ji ci table des négociations fa nga xam ni décideurs yu mag yépp nga xam ne euh, ci wàllu environnement la ñuy liggéey ci wàllu justice climatique la ñuy liggéey bu fekkente ne yow defu loolu mel noonu nga jox leen ko ñu yóbbaale ko est-ce que dinañ xam lan la Sénégal di dund mhm. particulièrement les femmes d'accord Kajoor euh, baal ma uh-huh. euh, yaa ngi cité benn partenaire bi xam ne moo leen di accompagner Natural Justice voilà alors je pense que li ngeen di li ngeen di nii c'est pas quelque chose de facile c'est est-ce que am na ñeneen yi nga xam ne ñoo leen di accompagner à part ñooñu. Euh, à part Justice gis naa ne am na ñoom am na ñeneen ñu leen di accompagner. ñun ñi aussi am nañu yeneen réseau euh, yoo xamante ni ñu ngi ñuy jàppale ren moom franchement réseau jigéen ñi ñoo taxaw. Mm-hmm. du question dañuy indi xaalis jox ñu. mais dañu nañu marché bi. ñun def ñoo soxal parce que boobu ba léegi yéen a ngi koy wax ñun comprendre ñu woon mais léegi on vient de comprendre parce que ñu ngi koy subir ñu ngi koy dund par exemple fii nii à Dakar am na association jigéen yu bari yoo xamante ni tey dañoo mobiliser wu nee nañ samedi 25 euh, euh, novembre à partir de 16h jusqu'à 18h à la place de la place de la nation à la RTS elles vont venir marcher xam nga sànq bi ma yegsee maa ngi toog dama toog yegsi rek def nii sama téléphone gis benn message mu naan ma man xamuloo ma euh, je me présente mais marche bi ren damay ñëw marche mm-hmm. donc ñu ngi prévoir am lu toll ci 500 femmes mais mun na am aussi ñu dem ba 1000 femmes. Euh, bi ñuy bind autorités yi pour di leen ñaan autorisation di remercier aussi euh, préfecture bu Dakar di remercier commissaria bu Médina parce que boobu ba léegi à chaque fois bu ñu ñëwee dinañ ñu accueillir ni ñu war a accueillir. waxtaan ak ñun <laughs> def enquête bi nu mu waree ak ñun def ci lépp lu leen war te à chaque fois aussi bu ñuy def marche bi. police nationale def ñuy encadrer encadrement bu mucc ayib lu toll ci cent wala deux cent policiers ñoo ñuy encadrer pour que jigéen ñi duñu am benn problème ci marche bi. alors euh, Khady Camara en en une minute ñu bàyyi la nga nga joxe sa mot la fin certainement une communication buy porter si si si marche euh, boobu nga xam ne moom ngeen fas yéene. amal kañ la fan la et puis le mot la fin. en tout cas d'ab tout d'abord maa ngi remercier cette TV. Mm-hmm. ci opportunité bi ngeen ma may. c'est vrai que les délais sont très courts. Mhm. mais à chaque fois su ma leen demander dara. da ngeen ma koy may waaw wan ngeen ma ne sama kër la. di remercier bépp association boo xamante ni jàpp na si. di remercier Natural Justice ci liggéey bu rafet bu mu def ak li mu nangu bi yoon ñëw liggéey ak vacances vertes ci mhm. marche des femmes troisième édition de la marche des femmes pour la justice climatique. Mhm. ñoom comme ni ma leen ko waxee. communauté yi moo leen di gën a intéressé sax que jigéen ñi kese parce que boo nee communauté am na jigéen am na góor am na xale am na mag am na ndaw. Mmh. ñëpp ci biir donc loolu moo tax bi yoon te mu marche bi dañ ne mobilisons-nous pour la justice climatique. Mmh. mais nag am na beneen bu génn ci suuf boo xamante ni mmh. waaw dañu ne ah changeons de trajectoire il est temps de changer de trajectoire maanaam euh, la transition écologique urge aujourd'hui au Sénégal donc ñun loolu la ñuy ñaan euh, gouvernant yi di ñaan képp kuy jigéen ci Sénégal invité nañ la star parce que ku mel ni yow bu ñëwee mhm. sa morom dina ñëw bu buñ la gisee dinañ ne eh kenn moo nekk 7TV ñëw na xaar ma daw dem yooyu dafay xam nga yenn vous êtes des leaders d'opinion en plus en plus euh, influenceuse nga en plus <laughs> léegi damay bëgg lépp lu may def dinaa ko partager ak yow mhm. nga daal di koy partager ci say plateforme comme ça marché bi mën a law ñëpp mën a ñëw di remercier jigéenu Saint-Louis Maka Jama Aram Diop Euh, di remercier jigéenu sasal Gandiol waa Thiès di remercier jigéen yi vacances vertes di liggéeyal yépp di remercier askan bi nga xamante ni ak communauté yi nga xamante ni Natural Justice mu ngi liggéey ak ñoom ca Toubacouta ak un peu partout en tout cas ñoo ngi remercier aussi madame Salimata Ba parce que euh, jàpp na ci bu baax moom jigéen la boo xamante ni moom it dafay xeex saa su ne lépp lu jëm ci wàllu àq ak yelleefu mhm. jigéen mhm. ñoo ngi remercier ñëpp fàttewuñu kenn di ñaax ñëpp nag mhm. samedi 25 incha allahu rabbi à partir de 16h place de la nation mooy rendez-vous bi 18 trente 30 lañ koy jeexal à la RTS. Mhm. bind nañu courrier nag ki nga xam te ni mooy ministre de l'environnement Alioune Ndoye parce que nag Alioune mooy également maire de Plateau. Plateau mu ñëw ngir yàlla mu jëlal ñu suñu mémorandum boobu bu ñu ko liiree mu daal di koy jël yóbbu ànd ak moom yóbbu ko ci COPBA daal di xamal waa foofu ne de décideurs yi ne xamal négociateurs yi ne. que Sénégal pàcc bii nga xamante ni mooy pàcc jigéen ñiy subir effet changement climatique de plein fouet. Mhm. dafa nekk loo xamante ni dañ ñoo daf ñoo soxal lool. parce que dañoo bëgg baatu jigéen ñooñu ñu dégg ko un peu partout dans le monde parce que marche bi pour marché des femmes seulement. pour le Sénégal mais c'est une marche des femmes pour toutes les femmes d'Afrique jaajëf jaajëf euh, Khady Camara j'espère que euh, le message est bien passé en tout cas mënul lu dul passé parce que l'explication a été assez fluide euh, et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on euh, qu'on vous reçoit Merci et qu'on aura toujours le plaisir le même plaisir de vous recevoir ici xam naa dinañu retrouver pour le bilan et puis yeneen perspectives yi en tout cas ça a été un plaisir ñu lay ñaanal euh, kendalu jàmm et puis à un au revoir jërëjëf merci beaucoup merci madame Camara voilà fan nga jox ma sa numéro. noonu lay demee donc c'est juste après ñu ñëw ci rubrique yi mu nga xam ne moom mooy pàcc bu mujj bi léegi léegi lay doon Kéna ak euh, borom secret yi ñu ngi toog léegi léegi lay doon bu bakk bi jibee ba noppi.